asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokku téléspectateur u Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar comme seen ni ngeen ko xamee rek bés bu nekk rek seen idée tey nag ñu ngi mardi ah mu tombeek le 21 li ñuy def mooy bàyyi leen ngeen dem déglu yëglikaay yi li ñu ëndil tey ñu dikkaat ak yéen si plateau. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah mardi 21 septembre 2021 dañuy yëg ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko. yëglikaay bi tey xëtamu njëkk lëm ca xëy fësal bokk na ci ka nga xam ne ni moom moo di Baye Peul ma nga xam ne ni kon na xam na ne moo Modou Lo ñoo ma sa bokk écrit fa nga xam ne nii moo de ca Parcelles Assainies moom Baye Peul nag ca États-Unis ga mu ne daal fa la waxe ak Ama Baldé nga ma xam ne bëri woon na ak moom Ama daan ko Baye Peul day la mu wax Ama ne na ko sa digganteeg Modou dooti jële lu dul noppil ak ay duma wala muñal ndax nag daa jàpp ne ko wala boog lam ko xamal ne na ko yow Ama Baldé lay wax de ne na ko Modou loo yeggoo ko ci we moo la dàq bëre moo la man te itam dina la duma ba nga tëdd mu door laa daan lii mooy waxi Baye Pël mel ni ki daal daa jàpp ne muut loo daal kon du moroomu amaabal Baldé tey suba waxi noppi moom Baye nag moom moo waxee wax bu mel ni ki noonu leneen loo xam ne ni daal yëglikaay bi xëy na tey ñëwal ñu ci moom suñu lamb ci xëtam mu njëkk muy saison boo xam ne tëjiin nga ren nar naa neex muy sason mille saison 2021 bii nu nekk parce que nag sitel nañu combat ya nga xam ne ay combat yu mag a mag la yu ca nekk bokk na ci ba ca mooy Bombardier ak Balla Gaye numéro Boy Niang ak itam Ama ak Modou Lo mu mel ni ki nag combat yooyu moom ku ne xam na ne léegi ñu ñëw te c'est nag saison 2021 bi boo bëggee dégg-dëgg ñoo ko nar a tëj yow moo tax yëglikaay bi jàpp ne daal saison ba moom danañ ko tëj ci la nga xam ne ni daal muy tëjin gu nar a neex lay doon yëglikaay ba moo xëy tey ñëw wax ñu ko ñi nga xam ne nii moom maanaam neex la ren defuñu ko wala boog seenu saison boog xaw naa tane mooy ña nga xam ne ñoom ñoo di waa Lansar yëglikaay ba ne na six victoire la ñu am quatre défaites yëglikaay bi nag moo tax mu bëgg a mu xam xamal ñu ne daal écrit Lansar loo ci mën a dégg daal am na écrit yoo xam ne ren ñoo leen tane moo tax yëglikaay ba gis na nag jamono jooju loolu lay am moom cadre yi wàccuñu ca suuf bëre takk ay ngeem wan ñu foto ko nga xam ne moom moo di nees ñaar ñi nga xam ne war nañoo takk ngeem bu bëre lu yàggul lool ci kanam muy ki nga xam ne moo di fils de Balla ak général Malick sunu làmb nag nee na drapeau Bamba Fall ba boo bëggee dégg-dëgg Assane Ndiaye ko tëgg soog la boo xam ne daal bu nar a la ñuy dem muy les arènes les la mu xëy dinu ko wax moom moo di ka nga xam ne nii moo di Sa Thiès rakki Balla Gaye numéro 2 Yékini Senior xaritub Modou Lo Papa Sow mu mel ni ki nag ñaari mbër yooyu daal seenu compa fi mu nekk nii amateur lamb daal daa mel ni ñoo ko bëgg di ko laaj combat ba nag fi mu nekk nii daal ñëpp a cay wax ngir mu taxaw yëglikaay ba nag nee na amateur yi boo bëggee dégg dëgg moom na nañu boobu combat maanaam bu doon ci ñoom la aju daal ba tey combat ba taxawoon na booy kay rek ancien lutteur na combat la boo xam ne daal bu neex a neex la te itam nag bu jaar a jaar yoon la raay ba di am observateur tamit nekk ci lamb ji nee na la boo xam ne daal logique na ndax nag wax na la tax combat ba logique moom raay ba daal gis-gis booba la ca am keneen koo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci moom muy may sa njaay mi nga xam ne ni moom moo nekk premier vice président wu CNG ñu jox ko lépp loo xam ne bokk na ci lambi dóor ja mu di ko saytu may sa nag ñëw na ca la nga xam ne moo leen wutale ak équipe bu CNG bi fi nekkoon ak seen équipe bii nga xam ne ni moo fi ne may sa daal tey moom la ñu xëy dalal mu ngar daajo yëglikaay ba nga xam ne moom moo di les arènes seq fa waxtaan mu yaatoo yaatu ak ndey kumba Fall ñëw na ci ay mbir yu baree baree yoo xam ne ni ñu ngi ko fay def tey itam mu wute lool ak li nga xam ne moo fi amoon ci CNG bu njëkk ba kon moom may daal la mu gis mooy maanaam wàllum liggéey ñu koy def bu baax a baax a baax kenn koo xam ne nii moom liggéey ba mu doon liggéey muy wàllum MMA daa mel ni fi mu nekk ni daal da koo fas yéene nag suspendre moo di rëg-rëg ma ngeen xam mu caaro yëglikaay ba moo xëy tey ñëw wax nu ko ci la nga xam ne ni moom moo di berafia beneen écrit boo xam ne ni daal yëglikaay ba ñëw na ci ñoom ak cinq victoire ak huit défaites ya nga xam ne am nañ ko muy waa kolobaan mbooloo mel ni ki daal ren ñoom daal seenu apprentissage nanu dugg see ñëw nañu la nga xam ne nii moom moo di ndam ya yëglikaay bi tam ñëw na ci écrit boo xam ne boo bëggee dëgg-dëgg moom maanaam la leen gaañ wala la leen rey moom moo di covid 19 ba muy waa jàmbaar wrestling académie muy ña nga xam ne nii ñoom ñoo di ñoom Papa Sow ndax yëglikaay bi nag benn combat lañ am benn victoire yëglikaay bi di les arènes moo xëy tey ñëw dina wax lu mel ni ki noonu ba tey lambi simple ja daal mel ni ki fi mu nekk nii daal boo bëggee dëgg-dëgg daa mel ni mbëri simple am ba tey boo bëggee dëgg daal ah, kenn renouvelé gu ci sa licence ngir nag waajal saison ba yëglikaay ba xëy na tey ñëw di nu wax lu mel ni ki doon ka nga xam ne ni moom ab saison mu ngi koy waajal muy Kaaw ba tax na mu ngay wax ca kombaam bay ñëw digganteem ak caatu Daawuda Fall Kaaw Gourdin daal nee na bu ko caatu Daawuda Fall daane day nee na loolu moom surprise bu rëy rëy lay doon waaye foogu ko xalaatu ko tey jàpp na ne caatu Daawuda Fall nekkul koo xam ne ni jàpp na ne mën na koo daan ci combat bi nga xam ne moom la ñu war a dëgmal ñoom ñaar war koo seq jërë ngeen jëf kon dégg ngeen yëglikaay tey li ñu xëy indil moo xam sunu làmb la moo xam les arènes la mu yëglikaay yi nga xam ne rek comme ni mu koy waxee ñoom moom saa suñu xëyee rek 100 pour cent làmb la ñuy bind moom la ñuy indil ci la ñuy wax gis ngeen xët bu njëkk yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di sunu làmb la ca xëy fës moo di Ama Baldé ak Modou Lo mu mel ni bu combat bokk na ci combat yi nga xam ne coow la li naan kër bu ki ñàkkul coow waaye boobu combat ñi <laughs> moom coow rek la Ama Modou parce que nag li ko waral mooy ñaari mbëri ñoo bindoonoon am na koo xam ne nag gis ngeen ko mu xëy di ca wax muy Baye Peul waaw Baye Peul nag la mu xamle daal nee na kii di Ama Baldé moom yeggul Modou Lo ci wex ci wàllum bëre ak ci wàllum xeex lu mën a doon moo tax jàpp na ne loo ci mën a dégg bu ñu ca yeggee Modou dina ko duma daan ko loolu waxi Baye Peul la Baye Peul nag ma wax leen ku ne xam na ko defe naa wala bokk ñuy suivre làmba moom parcelle la dëkk yaa ngi dégg en même temps nekkoon na écrit Rock Énergie bokk ak Modou Lo benn écrit yàlla dogal mu nekk di bëre ba benn moment mu dem États-Unis ñu gis ko mu xaw a sori làmb ci côté bëre bi yaa ngi dégg mais terewul ah mu ngi ciy wax des fois mu ñëw Sénégal delluwaat États-Unis waaw mu mel ni kooku mooy Baye Peul Baye Peul boobu tamit bërin ak Ama Baldé daan ko parce que euh, comme ni ñu ko waxee bërki dem Modou ni mu duggee am fa ay ndam noonu la Ama duggee Parcelles am fa ay ndam bokk na ci Baye Peul defe naa seen combat ba Iba Mar Diop defe naa bis bu jaan ci njëkk a génn defe naa coow li metti woon na trop ca fa nga xam ne moo doon Iba Mar Baye nag tey bu xëyee waxee noonu yaakaar naa liñ ci mën a jàngate mooy a ah, li mu bëgg ak li mu jàpp ak li mu xam ci Moodu loolu la wax parce que Moodu moom ku ne xam na ne adversaire de taille la Ama xam na loolu te itam kuy setaan làmb xam nga ne Moodu Lo adversaire de taille la kuy tëdd nelaw du ko daan wala ko bëgg lu yomb jërét waaye eh, dina ko duma daan ko nag loolu moom ah beneen kàddu la boo xam ne nag dañuy bàyyi ba biir yegg ca bés ba ndax Ama neex naa duma daan dañuy yónni yàgg waaye daal xam naa komba bu méttee méttee métti la waaye ñaar lañ ñoo xam ne nii daal ay boroomi jom lañ ay boroomi euh, fit lañu muy Modou muy Ama te itam bëri mën nañ ko te am nañ sañ-sañu làmb ndax Modou Lo tey nekkul roi des arènes ci lu ko neex déedéet da koo nekk parce que dafa fas jomam mu jaral ko mu ñàkkante ba nekk tey roi des arènes Ama itam bi mu ñëwee si làmb yàggul bu liggéey tey ba war a bëri ak roi des arènes ça veut dire moom tamit nekkul ne fàllaayee sama bàyyi kese samay mag ay la ay mbër lañu sama baay mbër la déedéet dafa dem liggéeyi pour ma nekk mbër loolu moo ko indi tey mu am méritu bëri roi des arènes dañuy yónni yàgg nag ba xam buñ fa yeggee incha allahu rabbi fan la wane di mujj ak ay bëtam waaw loolu mooy li nga xam ne moom moo am. ba tey saison bi ni mu nar a tëjee 2021 bi yëglekaay bi ñëw na ci ni ñu ko nar a collecté moom sunu làmb gis na ne dina neex trop ndax boo xoolee Bombardier Balla Gaye Tapha Tine Boy Niang ah, euh, muy ay combat yoo xam ne. combat yu mag a mag la nar a doon waaye tamit mu du Ama loolu nar a euh, tëj saison bi yëglikaay bi ñëw na ci dafa naa ne yooyu combat bu buñ bëree ba taxali ko lu baree baree bare dina feeñ ci làmb ji maa la ko wax làmb ji dina composé waat combat ñetti combat yooyu bu sustuma Balla Bombardier Tapha Tine booy Niang Modou Ama bu ñu bëree ba daanante incha allahu rabbi yàlla ñu ko fekk tal ko lu bëri dina kii te et saison bi tamit xam naa ne bu keroog amateur yi loolu ñu ngi koy xaar yàlla nañ ci yegg ak jàmm rek ñu bëree ko promoteurs yi ko tëgg réussir li taxoon ñu tëgg bés yooyu loolu lañ leen di ñaanal. ba tey bu ñu continuer ak sunu làmb gis nga ca roq balam ñu indil écrit saar ak seen saison ren 6 victoire 4 defet boo xoolee yëglikaay bi noonu la ko indee tey mu mel ni kon écrit saar loolu waaye mën a xew wax mooy même bu combat yi bëriwulee itam am nañu seen victoire am moo ëpp seen ay défaite loolu di résultat boo xam ne bu baax la maa tane na quoi parce que moo gën parce que da gis écrit boo xam ne day am ay nombre de défaites yu ëpp nombre de victoire mais ñoom fexe nañ ba seen nombre de défaites seen nombre de victoire ëpp ko donte seen i combat bëriwul loolu nag li cause bi ren lenn la mooy kor saison bi yéex naa ubbi bi mu ubbee tamit ñu nekk ba ci biir mbir yi amaat ay combat war a bëriwaat saison bu far fa jaare tëj waaw parce que loolu na ci li tax Lansar seen ay mbir yu mag bëriwuñu ren ndax boo xoolee ku sa amoon na war a bëri ne kuréel waroon na bëri yaa ngi dégg Tidiane Faye ñu wax combat Siteu waroon na bëre Mama Lamine waroon na bëre ñoom ñi ñëpp boo xoolee bëriwuñu kon loolu itam nekk na loo xam ne ni bokk na ci li na affaire yi drapeau Bamba Fall soxla bu nar a métti bi ñëw na wan ñu ko ba tey gis ngeen noonu le maire de la Médina wala le maire de Médina Médina muy monsieur Bamba Fall drapeau mu Assane Ndiaye tëgg boobu làmb ah mu war a dox ci diggante fils de Balla école it Balla Gaye ak général Malika ba nga xam ne mu nga dëkk ca Malika muy combat boo xam ne bu yàgg yoon la waaye am nañ yàqin ne incha allahu rabi léegi mu féete boor yàlla nañ ko fekkee te tal bu nu continuer dem les arènes lañ fay fekk mooy Yékini Senior ngeen xam ko bu Grand Médine Sa Thiès bu Guédiawaye rakku Balla Gaye ñaari mbër yooyu lañu yëglikaay bi xëy tey indil xamal ñun seen seen combat daal fi mu nekk ni ñu koy tudd bëri na ñu ko bëgg bëri na mais yëglikaay ba yemu ca parce que dafa doxantu daf xam naa mi ko trottoir am laaj amateurs yi mu mel ni amateurs yi moom bu desoon ci moom boobu combat ba tey am na Yékini Senior Sa Thiès dama ne nag koo jaabu parce que li tax wax rek mbër mag la daa bokk ci yàlla dafa dogal nag làmb des fois day am yaa des hauts et des mais wax nag yàlla su bëreeg Sa Thiès ah euh, tey defe naa ne loolu jaadu la parce que itam combat la boo xam ne ñu ko bëgg bëri na te itam war nañoo mën a bëri ñoom ñaar actuellement làmb boole na leen de te ku ko tëgg nga am journée bu neex a neex ñu ngi ciy dégg nag ay wax boobu ba tey mais yàlla na yàlla dogal mu taxaw yàlla na yàlla dogal mu taxaw parce que làmb la joo xam ne war a taxaw la Yékini Junior moom mu ak Sa Thiès dafa neex combat du ko dàq waaw booy kayre loolu la dëggal ne na combat bu jaadu la braay ba tamit wax na ko parce que li olof naan montatu baax yépp bokk heure loolu moo ci ne waaw waaw waaw loolu mooy li nga xam ne nii moom moo am may sa njaay tamit mu ngi xëy tey di wax moom mooy premier vice président wu CNC bokk nekk ki nga xam ne moom lañ jëkk moom lañ jënk lépp lu jëm ci wàllu làmb dóor moom may sa Ndiaye moom nag mu ngi xëy tey di wax seen équipe seen doxalin ak seen taxawaay xam ne ne daal boo ah am na lu leen di lu leen wutale ak équipe bu CNC bi fi jëkkoon ne maanaam bi Alioune Sarr jiite woon waaw ñoom ci façon ba ñuy liggéey ak nañuy doxale ak lañuy ñuy jëf loolu nag defe naa la ñuy xaar ci ñoom différence ba daal liñ ci soxla moom na différence ba nekk loo xam ne rek ah dañ naan CNC bi fi bi fi jógee baax na waaye bi fi nekk léegi moom mu gën loolu la ñu bëgg ah loolu lañ leen di ñaanal parce que itam ay ndaw ngeen yoo xam ne ni seen réew leen wu lu dénk leen lenn ci seen liggéeyu réew ngeen war ko doxal kon ñu ngi ñaanal équipe bu CNG bi fi nekk tey président bi di Bira Sène ak Maysa Ndiaye mi nga xam ne nii moom yàlla dogal na suma xarit la Maysa moom suma xarit la ma koy nuyu di nuyu waa Mbour yépp yàlla na yàlla def ngeen réussir mission bi ak biir yépp ñoom Issa Ndiaye ah ñoom Abdou Aziz Guèye ñoom Xaaya Guèye ñoom ñëpp a biir équipe parce que équipe bu CNG bi actuellement yaatu na ah ñoom ñëpp a ci biir ak ñoom Ndiame directeur administratif ñu ngi leen di ñaanal daal yàlla na ngeen réussir seen mission barke yonent bi sallallahu alayhi def fi lu fi lu gën li fi ñi fi nekkoon def parce que loolu la ñuy xaar ci yéen mu mel ni lambi simple ci tamit ba tey benn ba renouvelé gul sa licence loolu mooy li am ci simple bi ah tey saison bi war na ubbi au plus tard mois d' octobre ndax le 2 octobre góor production teg na 1 million Adrien Senghor le 3 octobre Jax teg na 3 millions stadium Iba Mar Diop kon defe naa renouvelé licence yi jot na ci mbëri simple yi waaw xaw ma nag lu xew ba actuellement amagul waaw mais bon. war nañ ko daal jéem a renouveler wala te itam ci côté renouveler bi na leen ko CNC yombal parce que tamit saison bi su ubbee promoteur bi teg xaalisam ay mbëri ñëwuñu loolu du neex kon nañu xool nu ñu defee ba affaire yi man a kii daal rëg-rëg ci wàllu simple bi daa mel ni tamit ci biir bu ñu demee ci biir gis nañ ko ni mais wala boog ci wàllu MMA bi mais dafa daal fi mu nekk dafa suspendre MMA ba ca kanam ah waaw dafay jaar parce que combat mag guy xam ne ne le 200 bi la yaakaar naa loolu ñëw na ba pare kon defe naa il est l'heure que nag mu gën a concentré wu ci combat am te combat boobu dama naan moo kuy ku ko daan rek am na lu mu fu mu la yóbbuwaat ci làmb ñoom ñaar ñëpp nag ku daan combat bi ndax maya daan rëg-rëg tey ci làmb ku ko def ndax masta daanu ah li dafa fra bi ku ko ci daan actuellement wax dëgg yàlla ah bu la làmb bàyyoon xel benn dina la bàyyi xel ñaar parce que nekk na xale boo xam ne tey ñaa ngi koy xool ëllëg fi nga xam ni nii moom ñu ngi koy xool ca fauteuil roi des arènes naan est-ce mënu koo jël ak mën na koo jël parce que loolu lu mu wane la ci biir li muy def parce que la loolu ñëpp ci teg seen bët kon ku seq ak moom bés defe naa ne boo ko daanee dina la jural njariñ moom rëg-rëg itam li tax mu suspendre euh, MMA bi concentré wu ci combat bi xam na ne adversaire bi mu am adversaire de taille la te bu daanee guy gi moom itam maanaam dafa am fu mu koy dugal da koy dugal par force ca ña nga xam ne nii moom la ñuy wooyee les VIP wala mag ña loolu mooy li am waaw parce que nag guy gi tey daan ko ci làmb itam lu am solo la ci làmb ndax ku ne gis na fi mu mujj ak Siteu da ko daan kon loolu tey defe naa ne moo fi ñëwoon ci yëglekaay yi ak kaaw gourne bi nga xam ne tamit gis nañ ko ci ginnaaw euh, yëglekaay bi gis ngeen ko noonu kaaw ne na moom euh, bu ko caatu daaw defal daane daal moo koy bet waaw waaw waaw ne lu ko bet lay doon waaw nee na lu betteel lay doon loolu la kaaw gourne wax waaye dama koy xamal ne ko kaaw adversaire nga am caatu daaw defal mbër la de xale la am naa encadrement dal na te mën naa bëri yow nag sag mën a bëri kenn du ko nattable ndax li ngay def ci simple bi man mi la tiim ngay simple xam na ni si fi mu nekk nii dàq laa bëri yombul yow Kaw Gourdin xale bu mën a bëree nga bu gëm li ngay def nga ku sérieux nga waaye danga nga am adversaire de taille te lambi dóor ngeen jëm te benn jël mooy am yaa ngi dégg kon bàyyi ci xel man de yéen ñaar ku ci daan sama morom du ma bett boo daanee caatu daaw dafal yow Kaw Gourdin du ma bett bu la caatu daaw dafal daanee du ma bett encore une waaye nag làmb la mbër mu ne li nga yëg ak li nga sentir ngay wax waaw leen jox di daje suba incha allah rabbi waaye aussitôt tamit di ci profito rek di nuyoo Sénégal yëpp di ñaan yàlla gàmm gàmmu màggal gi nga xam ne mu leen jëm yàlla nañ ci dem ak jàmm ñibbisi ak jàmm barke yonente bi sallallahu alayhi wa waaye tamit di rafetlu ko nga xam parce que tey tamit ah màggal bu jotee ñun ñëpp di dem tuuba bu ñu gisee ku mel ne Abdou Aziz Alen Ndiaye dem mu def délégation moom tamit at mu ñoon mu def ko ci kanamu xalifa bi ah, yëkkati li nga xam ne nii moom la amee ci wërsëgam joxe ko ci màggal gi defe naa loolu tamit bu ñu taxawee fii faw ñu wax ko parce que moom suñu nit la suñu soppe la parce nit la koo xam ne nii wax dëgg yàlla ah comme li may wax rek Aziz moom yàlla damay ñaan yàlla defal ko fan wu gudd wér gi yaram parce que nit koo xam ne nii ah da di jëflante te jëflante bu rafet ngeen di seq kon kooku yàlla jar na ñaanal te itam bu ne gis na ne ni muy jàppalee nit ñi kon Aziz loolu mu def démb àndoon ak ñoom Balla Gaye ak ñëpp ñi nga xam ne nii toppoon nañ ko loolu am na solo trop trop di lu rafet rafet di ñaan yàlla rek li nga xam ne moom la sànc ci ay société fii ci réew mi yàlla na ko yàlla gën a dooleel parce que sénégalais la te ay sénégalais ñoo liggéey muy Zador ak ABC bu mu mën ca doon rek la ko li composé ABC yépp Zador ca biir ak yeneen société ca biir ak Alborax ak lépp parce que loolu lépp ci biir ABC la bokk kon loolu dañ koy ci ñaanal yàlla yàlla teg ci loxo ba mu gën a yokk avancé bu baax a baax moom Abdou Aziz Aly Ndiaye mais tamit di jaale ñu nga xam ne samay goro lañ rawatina sama ay goro aawo samay goro yi nga xam ñoom ñooy sama goro si côté aawo muy waa ndondol ngooceem ñooñu nga xam ne nii suma yaayi soxna Balde moom moo ñàkk bàjjanam ñu ñaan yàlla meer boobu yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana ah yàlla na yàlla yërëm bàjjana suma euh, yaayi soxna jooju di maamu ci suma soxna di ko jaal ay doomam yépp moo xam doomam yu jigéen la ah ak ay ñëpp ñi nga xam ne daal ak njabootam lañu maa ngi koy jaale ñëpp ñëpp di jël njaal bi di ko togg teg ci loxo Daouda Sène mi nga xam ne moom la yàlla dogal muy góor di taaw waaw maa ngi koy jaale maire bi di ko jaale su ma soxna encore une fois aussitôt tamit parce que soxna bi nga xam ne moom la ñu moom bu yàggul tamit dafa perte li nga xam ne moom mooy bàjjenam bi ci dëkk bi ñuy wax tàllanc moom tamit maa ngi koy jaale waa tàllanc yépp di ko jaale tamit ki nga xam ne moom moo di magam wala boog rakkam di nga xam ne moom bokkal na rek bàyyi muy ngal gu fay di papaay suma soxna di ko jàll waa tàlleen yëpp di ñaan yàlla yëgal leen taxareen aljana maire bi tamit ñu ko doon wax mbay ta fay loolu mooy àddina kul na seen saay xatin mawtin ko wax du dañ kon di jaale ñëpp ñi nga xam ne ni daal ñoom ñoo génn àddina di ñaan yàlla ñëpp yàlla jéggi leen xareen aljana mais sama goro yi daal vraiment ah maa ngi leen di jaale yëpp golo ya ya nekk ndondol ak ya nekk daadak ak fu ñu mën a nekk rek maa ngi leen di jaale ak ya nekk tàllenc ak ñëpp maa ngi leen di jaale waaw